jamono ji néew na lool nga dox te doo gis ku takk écouteur airpods wala sax mu sëgg ci téléphone am di manipuler moo xam ci mbedd mi la ci tali bi ci biir kër gi wala ci entreprise yi. bu ko ñi jàppee ni manque d'éducation la ñeneen ñi jàpp ne rek téléphone dafa dem rek ba moom askan wi. comme maanaam euh, ñi nga xam ne dañuy jël téléphone jël seen écouteur dugal ci seen nopp di dawal scooter wala ñuy dawal oto kooku daal li ma ci comme xel bëf comme xalaat bu may jox ñi koy def mooy nañu ci bàyyi xel parce que itam xel mënut a jàpp ñaar te itam am na loo xam ne risque la jël ay écouteur dugal ci dugal ci say nopp jaar ci tali bi yër écouteur mën na am sax ngay wuy téléphone mën nañu la wax loo xam ne sa xel mën na nekk ci loolu ba maara day taali nga dal ci kaw dara wala dara dal ci kaw bu boobaa itam daanaka la nga ci doon dabu di ko jar. téléphone yi lañu war a wàññi di jéggi tali di xool. wala nga sëgg si wala yenn chauffeur yi di dawal di jokkoo téléphone di xool ba mënuñ la wax lu nga xam day day jaaxal nga def soog affaire demee noonu même loolu am di tenue sax ñu ngi siy jog matuwaay waaye war nañ si yokk. manque éducation de base ndax doomu adama bi si këram la war a yoroo ba pare ay waajuram jàng ko comportement bi muy yor mais doo toll jamono boo xam ne nii waajur yi yaratuñu mbedd mi mooy yar lu tax man la mbedd mi mooy yar. da ngay gis nit bu nekkee si këram lépp lu muy def day rafet mais si génnoo beneen phénomène la yor mooy jikko boo xam ni jikko mbedd mi lay doon. mën nañu la wax loo xam ni sa xel mën na nekk ci loolu ba maara day taali nga dal ci kaw dara wala dara dal ci sa kaw bu boobaa itam daanaka la nga ci doon dabu di ko jar moo tax baaxoon na daal ci ni ma gisee gouvernement bi jël yenn mesures yi ci lu demee noonu parce que même tali bi yenn saa yi da ngay jéggi ci tali. gis benn waay boo xam ne day dawal ci tali bi jël benn loxoom téye ko volant bi jël beneen loxom bi ci des di wuyu téléphone parce que danga gis gis sofër moo xam ne day téye téléphone am si kaw tali bi di dox di dawal te loolu du yoon wala nga gis koo xam ne mu ngi jéggi tali takk casque di whatsapp sa gis téléphone du bàyyi xel tali bi te ñun ñëpp war nañu bàyyi xel tali bi comme ça passerelle yi nii yenn saa yi nga gis kuy jéggi te du yoon maanaam Sénégal li doonut yoon moo bëri. te loolu état bi am na si responsable. lu tax ma ne état bi am na responsable ndax léegi fépp foo mën a dem lépp loo mën a wax boo joxee xaalis ñu bàyyi la. xam nga am na loo xamante ni si maar day taal mais bu la dara bu la dara traversé kooku mënatoo ci dara tam na ci ñoo xam sax par vitesse la ñuy daw yenn saa yi sax maar day taal mën nañuy bëgg daal ci sa kaw boo échappé boo nee leen he ñu lay sànni ñu bàyyi seen loxo bi ñu téewoon falaam lañu dañu koy bàyyi di la ko di ko def nii. ta gars ñu ngi naan léeg-léeg fekk ñoom ñoo koy def. ñoom ñoo ñi nga xamante ni war nañu baay seen bopp dimbale réew mi dimbale lépp di xalaat maanaam ni ngay yore téléphone ak ni ngay takk écouteur da nga gis ko takk airpod bu nga xam ni airpod bi li muy wax nit sax day wax yow di la dégg doo ko déglu maanaam wàññi tamit réseaux sociaux yi. soo génnee si télé bi fat say nopp fooy déggee te nopp la ñuy déggee il faut léegi ñu yee nit ñi muy yee mooy système bi ngeen jël nii parce que am na ñoo xam xamuñu foog ñu xamal leen. am ñoo xam ne yaruñu foog ñu yar leen mais ni leen di yaree mooy écran bi la ñuy wane muy nit ki comportement bi muy yor. nit ku nekk rek war nga concentré aussi lu nga xam ni da lay avancé loo wala wala bàyyi xel lu nga xam ne da lay daaneel toujours maanaam jéggi tali doo contrôler da ngay xëy rek tali su ko defee safar mu ngi daw lu bari du mën a téye am sa kaw rek lay mën a dox. ni mu war a toogee mais léegi ay fecc la ñuy wan ay film ay théâtre théâtre yi ñuy wane ay sexe la ñuy wane ay sol ñu gàtt. mais nit bu saañee ay noppam fan lay déggee loolu mooy manque éducation de base. donc yooyu nag dafay baax man pour man gouvernement bi jël ci ay mesures parce que itam bare na ay tolof tolof yi am ci tali bi li ci gën a bare téléphones yi ci la ñu bokk. nu ñuy jéggee tali daal war nañ ko seetaat nu ñuy yore airport nu ñuy takkee casque nu ñuy was sa bee si kaw tali yooyu safar ci it war nañ ko bàyyi xel bu baax dama koy gis ay safar dañuy dem ba yàgg da ngay daw ba fere ne bëgg jéggi leen ñaata duñ la gis. nekk téléphone bi ak airpod yi loolu yëpp ñàkk déggale foofu jàngat bi may am mooy état bi tam moo liggéeyul foofu ndax nit bi boo koy jox permis yu légal moo tax ko jox permis mais léegi da ngay toog si biir kër yónnee sa xaalis am sa permis génn di dawal léegi mën a amul de xam la moo am màgg dawal permis ni ñu koy joxee jaaru yoon sa kër ngay toog ñu indi sa permis. mais ci côté téléphone la téléphone moom avant téléphone ñëw da nga ko war a ki ni mu koy yoree téléphone pour. mission la mais mission bi léegi nekkatul loolu léegi ay film lañ siy seetaan même parce que lu neex da ngay gis nit day dox si mbedd mi di connecté faalewul kenn sañ ay noppam manque d'éducation la maanaam nit ñi ñooy dem euh, fekk ji danger bi fa mu nekk ñu daal di ci ni saraax loole nag nekk gis-gisu ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di intervenir waaye nag ñuy sàkko rek ngir ñu daal di xoolaat bu baax a baax ana yan anam la ñuy utiliser téléphone mooy rek li tubaab di wax tout excès est nuisible maanaam lépp lu ëpp rek mën na jur loraange lii moo nekkoon seen reportage du jour ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen sujet ak ci beneen gox.